parce que ñëpp a ñëw laata étudiants yi ak suñu suñu rakk yi ak ñoom ñoo ñëw ngir daal maanaam waaye ñu ñu leen mën na leen teg si ay conditions yu baax loolu la ñu waaye ñëpp jàpp loolu gis nga tey étudiants ba léegi ñuy continuer di def seen inscription yenn saa yi nga def inscription yi ñu la xaaral ma suba parce que dañoo bëri macha allah léegi nag ñoom comme ginnaaw ñoom ñoo génnoon ne mën nañ leen a teg condition yu baax yooyu ñun de yaakaar naa depuis loolu inter amical bi li ñuy def lu ne su ne dañ leen di convier dañ leen di woo ne kaay leen jël kaay leen venir prendre part ñun nag li ñu waxoon duñ ci dellu gannaaw nee na leen ñu yónnee lu ëpp 3000 suñu njiit yi génn ne laaj ne wax nañ leen pour ñu génnaat ñu wax leen ñoom nan lañ nga waxoon ñoom mënatuñoo dem ci loolu le fameux wax waxee la nañ génn ñoom ñu def ko parce que ñoom ñoo ñu mettre en mal ñoo ñu nar a mettre en mal ak nit parce que ñoom ñoo toog def seen déclaration ni daañu accueillir étudiants yi bees yi ci ay conditions yu baax. dèjà gis ngeen vidéo yi wane na ko rang bu dul jeex ku si nar a dugg huit heures di nga ndékki ba diis heures doo ko dem jàng dèjà yenn amul sax classe bu mën a contenir benn département amul amul tamit ay professeurs yu doy léegi ñu bëgg ñu ne le 6 daañu accueillir ñëpp te daañu commencé jàng yeneen université yëpp ñu ngi jàng université Assane Seck kese moo fi nekk di jàng actuellement lan moo tax mënuñoo jàng parce que ñi tey amuñu fi ñu leen fekkee dëgg rek ak amuñu sal bu ñu leen mëna a té te ñun daal ñu sétan loolu en tant qu'intermédiaire parce que mo dem ba jeex comme ñu ma la ko wax rek bu jaré bàyyi bakkat dañ ko fi bàyyi mais chaque année ñun xam sunu ministre dafay génn ñu wax sotti naa ay millions université Assane Seck njiit yi jot nañ si millions yi millions millions millions millions millions ñun soxla wuñu ay millions ñun li ñu soxla mooy suñu santé yi ñu defar ko suñu rak yi mën a dem jàng